ay ca mangook yële kaangook mankaador ak vox populi mu ne Sénégal gaaw ak dimanche yëpp de njeexantalaayu bis bi naqar ak tiis ay ronqañ yu wadd vox populi nag Seyda Mariama Niass moo dëddu de dugal Sénégal ci tiis lanket yéen i kaay ne gën ak àdduna Seyda Mariama Niass gi de ma sa ngéemu dëgg lay ni Sénégal umma islamique bi de waaye Medina Baye ñàkk nañ seen waajur laas na ko may ma ñëw du ñoom rek ñoo ñàkk de alxuraanul karim ki nga xamante ni ni de soxna si lay tedd soxna su tedd bi tabaraka taala la woon ma ne ku ko taxawoon la fonkoon alxuraan fonkoon ko teyit nekkoon wétlukaayam l'observateur journal groupe Futurs Médias bi def ci gëstu bu yaatu de ca ba mu ganee àdduna ca kosi ba ci ndakaaru gi nga xamante ci la wujjee boromam jaar-jaaram ci alxuraanu karim lépp fësal nañ ko ci l'observateur ne témoignage yi di ay seede fës na tamit jóge ci ki nga xamante moo di ci Abdoulaye Mbacké Gaye de Fatma nekkoon collaborateur ak oustaz Alioune soxna Seyda Mariama Niass 24 heures Corona ne Seyda Mariama Niass ku ko xamoon xam ko ci jàngale alxuraanul karim ku ko xamoon xam ko ci bëggoon téere yàlla sunu borom bi ku ko xamoon xam ko nag ci doon ko jàngale doon ko joxe te yéwoon ci lool moom mi soxna si 24 heures Corona juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett dala jota làq fii ci Mermoz ci Ndakaaru la génne àdduna tey jii bu soobee sunu borom lañ koy jébal boromam sa Medina Baye Medina Baye nag ku ko wax les écoles yi ne kaay ba tey ci Kaolack ndangaan dëkk moom Abdoulaye Niass boobee ma ne général jamono ji ma ngay dànkaafu kii di président Macky Sall les écu ni kaay ne xalif ba jamono ji maire ba futu la jël dëgmale ko ci président Macky Sall di ko tëkku nar ko yónnee ji ne nag lu jëm ci seen ziara annuelle bi nga xamante ni baaxoo nañ di ko def at bu jot ñu bëgg koo gàntal loolee moo dul mën a nekk moo tax bu muy taw baa muy naaj muy guddi baa bëccëg daañu amal bi les ziar xalif bay wax de ma ne président Macky Sall bis bu jé bëri day jëwe way takk der bu nar a dëgmal TV jàppale sa bakkan mi ngi ci xottu gàtt bu gën méttu nag di ngeen doon yi mbaam mbàmmeel mi bu ngeen moytuwul di ngeen doon imaam xalif bi mooy wax ci mer ba fut seen ziyaara bu am solo bi ñi bëgg di amal at bu jot ñu bëgg koo gàntal xalif bi ne dañ ko amal ci nii baa ci ne su saane xalif foowul kaful ne de ci kàddoom la nekk ne de ay jinne ak i mbaam moom la fiy xaare président Macky Sall président Macky Sall àndandoom ba woon xaritam ba woon ak premier ministre ba woon ak ki yore woon conseil économique social et environnemental di Aminata ngi ci journal li quotidien yëglikaay bi ne jox ko kàddu moom soxna si Touré ngir nag lëkkaloog ndaw yi ngir lal ñaalu politique a ma ne day moom soxna si Touré jamono ji nee na nag ay kàddam ci biir li quotidien ba tey ne ko am ci wàllum politique tey nag day dëggalaat ay kàddam tey ji la ci gën a sax du deli ci wàllum politique mi ni muy doxee du deli tribune yéen a kaay ne Macky Sall jamono ji ña ngay attaqué mi jamono ji dafa taxaw ñu ngi ko tegi gët nekk tëj lii di Sen TV ci janvier 2020 ndax defoon nañ ko fi daaw fekk waat ko ren ji leen ndax dañ ko bëgg a baaxantal lu ci mën am journal groupe des médias bi xëy na àddu ci mbirum Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp ak jamono ji jafe-jafeem ak gouvernement bi lu ëpp benn milliard ci suñuy koppar mooy li nga xamante moom la ko nag autorité de régulation di laaj koppar yu ni mel nag ñaawlu ak mise en boo xamante ni dafa mel ne moom la ñuy yottal l lépp nag li muy wax xalaatam ci réew mi réew mi njiit bi di Idrissa jamono ji les éco yéen kaay ne ma ngay soppi wàllum taxawaayam ci journal bi jox kàddu ki nga xamante ni moom moo di rek Idrissa Seck jamono ji soppi na yenn ci banqaas yi poste ba mu jox Déthié Fall ma ko numéro 2 daf ko bañ lànk kandaaral ne ko jërëjëf surnakël moom Déthié Fall jamono ji jox dox dajee Sénégal yi ci ay bés yi ñuy ñëw bés yi ñuy ñëw ndax dañ ci amal suppression de villes wala déet quotidien yéen kaay ne contrôle bu Ndakaaru ci la Abdoulaye Diouf Sarr xëy di addu ne nag lu jëm ci wàllum commune yi amul ci lenn lu ñu ñàkk dañ koo gagné kon nag Ndakaaru ci atum 2014 ba léegi ana lan la fi ñu amalee communication ci wàllu wi ni mel day mel ne dañoo ñàkk Dakar loolee leen yi mbër yi nag ngemu nañ taxaw temm ngir nag fas kurpañ dal jamono ji la ñu bëgg nag muy état bi ubbi leen seen gëw bi ñu mën a ngemu bàkku bëre nit ñëpp Bombardier ne fi mu nekk nii nag nekkuñu ci ab xeex ak bras fer ak nguur gi Serigne Mbacke Ndiaye ne loo ci mën dégg mooy